وحمده وسلم تسليما أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله قل ما يحبأ بكم ربي لولا دعاؤكم خلقت كل كريم وبخا توبيخ إكرام وقلت بخ بخا لك خطابي شاكرا مؤرقا هم زيني شكرك المؤرقا موت هنيا ريا والبسقا يا خاهرا يرد من تبسقا أمتني حتى دخلت البرزخ فليهب عن كل سوء برزقا يا من يريد كل توجيه شمقا ذاك بيقهر كل جانب بزمقا di jàng bax baxa di ko tarib ba mu yegg day ëpp waaye di fàttali rek mbokk yi fukki million ak juróom benn ci ay yoon seize millions de fois lañu ci jàngoon ca gannaaw jox ko ku tedd ki hadiya yamuñu ci fàggul mu dencaloon nu ko nu bëgg nag ci jamono yi mu génneel nu ko tasaareel nu ko ci réew mi ak Afrique ak àdduna bi yépp Bachiran bu ñu demee ci li mu bind ci benn tarjuman ci xasidi xasaayid yi mu def ci ramadan ci weeru koor am na fa fu muy waxee ni hazihi busharatun li zawil islaami li mbégte la ci waa islaam ci al muslimin wal muslimat daal cee teg ni wa afiyatun li gayrihim min annas waaye nag sérénité itam ci ñi des ñépp ñépp ñépp ci nit ñi ci àdduna bi yépp kon ku ne xam ne ni yërmandeem dafa ndar képp fépp loolu tey ji ci bisu altime bii mu wax yonent bi ne illa ilaya nafan fil kaw nay ni bi jaaxi man wulida fil isnay ni moo tax ñu waxee ko ci bis bi bashiran di wax ne nag sama doxin nag samay façon bu mu jaaxal kenn missionnaire la bu ñuy waaja bu ñu waajal te li ci kanam rawuti bët am na loo xamante ne bii bu ma koy wax spirituellement li gën a yell te di teggin mooy toog ci suuf di ci révélé tuuti nag ndax axbaar yi man la ñu jox diwaanu surkul jawahir fi axbaar yi fi axbaar yi saraayir pluriellement du dara lu dul rek ay ngóot yu caché wu yu nëbb au fur et temps lu ci war a génn ci révélation génn loolu nag lanu dëgmal moo tax yenn yi yenn yu nëbb yi du man di ñàkk bañ a génn jour après jour bu ko defee rek ñu gisee ko noonu am na loo xam ni itam xaj na dina nuru luy diis ci njaboot gi waaye du diis waaw ma man peut-être ki daf maa xamaloon fii li ma fi war a nekk dund gi ma fi war a dund ni muy toll léegi nag ndem soreetul dama ñaanoon ko ni ko na ma ci yokkal xuruuf yi tuubaa ñaar fukki at ak juróom-ñett loolu axbaari saraayir gi moo waral ma koy leer te rafet njort ci ne dina ma ko ci yokkal ma ci rafet njort rek wóoruma ba xam dina ko defam bi waaye nag je vais me profiter waaw pour faire de faire mon travail d'une mission précise et entière ndax li may ilham yéeme na ba nga xamante ne bii doonul loo xamante ne bii lépp laay mën a génne su ngeen gisee léegi ni may taalife du ma bind damay wax muy jub loolu foofu la egg ak nag waaw waaye nag faw dama bëgg ñëpp préparé xam ne man sama mission day waaj a tàmbali nii eh, président bi fi nekk di président Macky tey sama xarit di soppe bëgg naa mu xam ni rek fi mu toll nii sama mission dafa jot dëgg la je l'aime beaucoup nag mission bu ànd ak programme un programme significatif et précis mu comprendre économique fi mu droit croiser les bras réew mi dafa am fu mu jëm te ma doon dara loolu tax démarche yi di demee ni muy demee bu dee yeneen kilifa yi nekk ci réew mi yépp itam ngeen. nii ma doxalee man ne man euh, esclave bu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasulullah man existé wu waaye nag ku ñu waajal laa te loolu li ci kanam rawuti bët ba ba jàpp ko noonu jàpp ma ne am naa noonu baatu noonu ak baatu soxor alxeq ji wala baatu xasad bi ki ñaan bu ko ko tedd ki binduloon damay jàpp ne amul waaw j'aime tout le monde waaye nag gis nga booy bëgg mos naa ko fee par exemple Sénégal yi ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi même boo dee bëgg ñëpp itam war naa am settantal waaw parce que dimension yooyu tolluwuñu bëgg gi ñuy bëgg sëñ Muntaxa kii fi mu toll nii du bokk parce que selon sa dimension ni dimension toll noonu lañ koy bëggee. ñi si des ñi yëpp noonu chef d'état bi itam fi ñu toll boo koy bëgg du caa génn ni nga koy bëggee noonu ngay bëggee yottu parce que mbëggeel bi tolluwuñu dara ji tolluwuñu mbëggeel yi tollu man yooyu dama koy settantal mais nag ñëpp la bëgg ma kenn wutu man noonu itam te balu ñëpp àq nag bu ma yëg ak yu ma yëgul jàpp ma waaw di balu ñëpp àq jàpp ma ni kenn ameel na ma ak jàpp ma lii dama koy wax ci suuf li ci des mooy ci kaw laa koy waxee li may waxee ci kaw mooy dana wadd saa yu jotee danaa wax lan mooy wadd nóoree ni nag ne bu waddee moo koy for xanaa bu ko foree jox ma ndax du ma wor am na loo xam ne ay kot lay mën a doon te it aw wuy bu yëm ëmb lay mën a doon lii wadd bu waddee aw wuy lay doon kana koy toj ki ràññee suba ràññee ngoon wuy bu tojee bu yee dooyu luy tasaaroo buy bu tojee buy du mën a tasaaroo ndax ay asraar lañu benn guy sirru la doonoon ba ndeyam buy wër waaye bi mu tojee nag booba la mel ni wóol dëgg la buy dafa weex wóol nag dafa jaune waaye nangu nañu màcc ni doomi sonn lii lépp ay code danaa ko décoder ndax nag duma jaawale bi ci kër guddi am na loo xam ne ginnaaw téere bi lay doon bi soxna bind ci man bu jàllee lay doon taskati xibaar yépp ci réew mi ak bitim réew danañu bokk ci koom mi marmet bi ku tëdd ki moo ma ko jox te daf ma wax ni na ngay farlu ci li ma lay jox te lu ñëwit séddale ko ndax du jeex fa man di nekk itam dama bëgg ngay féex loolu la dikk te ay waxam gëm naa ko lu jiitu tey lu mu ma wax rek gëm naa ko te ngeen baal